yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuy di rafetlu ànd beeg télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi xibaar yi bokk na ci liggéey liggéeykat yu Sénat bi xëy tey ndaje mu yaatu assemblée générale di sàkku rek ñu daal di leen wutal feneen ci euh, fonction publique bu Sénégal ginnaaw bi nu tasee euh, kuréel googee senaa bi ndajem tey mi ci teewaayu njiital CNTS force du changement Cheikh Diop. Banque africaine bu développement diggee gunge ki koppar euh, secteur yi jural xëy ndaw yu Sénégal njiit la Donald Kaberuka moo ko tey ji di gannaaw audience ak président euh, Macky Sall déclaration politique générale bu premier ministre Abdoul mbay ñi nekk ci waame gi ñoom ne léegi li des mooy lu ay gët mën a tegu maanaam lu concret ndax jàpp nañ ne daal li mbir mi mooy saafara su sax euh, ci inondation yooyu moom premier ministre Abdoul mbay nag wax na ci kàddu yu démbam ci koom-koomu réew bi ak kàmb yi nu fi fekk ci wàllu yorin wu bon mu ne yàq geek yi dépense yoo xamante ni daanaka euh, dara jaako sumboon naka ci wàllu lebin wi anam foofee am nañu ci gan di euh, Seydi Ababacar Dieng économiste la enseignant chercheur ca FASEC tàggat yaram Pape Abdoulaye Der la ñu ci àndal euh, laata kon ñuy tëj xibaar yi. Sénat bu Sénégal dana ko fi tas mooy yéene président Macky Sall gannaaw ba mu koy gi assemblée nationale tey sax ñoom ubbi nañ ci session extraordinaire euh, ngir rek waxtaane ko tas ak sena gi bu poste vice président naka noonu conseil économique et social liggéeykat yi ci Sénat bi nag ñoo xëy tey amal ndaje mu yaatu assemblée générale bi li ko waral mooy naam dañuy tas Sénat bi nañ leen wutal fu nu yëngu feneen ba tey ci fonction publique yi ndaje mi nag ci teewaay njiitu synthèse force du changement la woon Cheikh Diop Marie Christine Mendy ma nga fa woon ak Pape décision bi nga xam ne moom la président de la république jël pour dissoudre Sénat bi ngir mbënd mi en tant que citoyen ànd nañ ci suñu position syndicale ci décision bi moo di liggéeykat yi fi nekk fii ci Sénat bi di juróom fukk ak benn yu nga xam ne dañu am ay contrat à durée indéterminée dañoo bëggoon bu ñu tasee Sénat bi waxuñu waxu fay leen seeni droit waxuñu waxu indemniser leen dañu ne dañuy ñaan autorités yi ñu redéployer leen parce que bariwuñu ñu redéployer leen assemblée moo ñu gënal bu fekkee am na ñu yóbbu assemblée ñi ci des ñu yóbbu leen feneen loolu it mënuñu ko bañ li nga xam ne daal moo ñu itteel dëgg-dëgg mooy liggéeykat yi fu ñu leen di mën di yóbbu na seen emploi garanti maanaam nañu leen euh, euh, nañu continuer di liggéey te bañ a am emploi bu precaire na seen contrat continuer waaye it nañ leen yóbbu fu nga xam ne dañuy am ay perspectives de carrière maanaam dinañ am opportunité am formation professionnelle am opportunité am yokkute catégorie ci bépp fànn Cheikh Diop njiital CNTS force du changement kon moo doon addu ci turu liggéeykat yooyu yu bi ci micro Marie Christine Mendy euh, ñeneen ñu jibali jàmbat mooy mécanicien yu nu sancal ca poste Thiaroye yi ñoom nag dañ leen fa a tuxalee tey jile waaye àndunu ci bu nu sañoon fañ leen di wutal feneen ca Sendou daal di yemb ndox ak courant ngir kon ñu mun fa dem ab diir la ñuy sàkku ci kilifa yi ci kanam di tuuti Mariem Biram Ba su noppee àndu ceeg Mar Dieng leneen ci xibaar ñeel mbokk yi ngan gu fi banque mondiale banque africaine développement ngeen baal ma njiit la di amal Sénégal Donald Keberuka ndaje dox na diggam ak président Macky Sall bi mu génnee ci audience bi bokk na ci li mu xamle yéene bu nu am ñoom Banque africaine de développement daal di gunge ki koppar secteur yi juralam xëy ndaw yu Sénégal waxtaane na it Mali ak tolluwaay la président Macky Sall Fatmata Ba at Atenar Ba. Vous savez, la coopération avec euh, le Sénégal est, très dense. Banque africaine bu développement bi ma jiite fas nañ yéene financer ay projets yu am solo ci Sénégal rawatina fexe ba nga xamante ni lu jëm ci wàllum xëyum ndaw yi dinañ ci taxaw. lii ngir rek gën a yokk suñ jëflante ak nguuru Sénégal ginnaaw bii moom président Macky Sall dalale nag waxtaan nan ci wàllu jafe-jafe yam ca Mali ak fitna ga li ñu sàkku ci kilifay Afrique yi rek mooy ku ne dugal sa loxo ci loolu booloo ngir indi saafara ca fitna ga ca Mali mu daal di fay dàkk. Donné donc l'essentiel de notre nay caaro yi mécanicien yi fa sancee ñu war leen fa toxale ñoom nag dañoo àndul ci toxale gi ñu fàttali rek ni mbébét gi mooy yóbbu leen sendu foofee dara yembu fa moo waral ñu ñaan taaxirlu donte ñu ngi leen fay tuumaal lu ne wàllum càcc viol agressé ak yeneen ci caaro yi lan saax ñoom nag jàpp nañ ne daal dara du ca lu wér ni nu ko waxee rek ànduñu ci toxale gi Mariam Biram Ba maax Mardien mécaniciens yi nekk fii ci caaro yi nelawatuñu ba yandoor li ko waral askan bi yeewu ci gox bi ñoo leen di tuumaal ni nekkatuñu ci kaaraange ndax ñoom. fii lañ nekkoon yor suñu ñu jëlee ñu fa dédommage wu ñu joxuñu benn dërëm du ñëpp lañ jox ñu jóge fi ñëw ñaan ci camp bi ñu may ñu nekk fii nekk nañ fi ba un moment léegi nee nañ waa koñ bi lañ wax ne ñooñu nañ fi jóge. ñi nga xam ne ñoo dëkk aux alentours ak ñun ñooñu ñoo commencé indi ay problème wax fi lu nekk ay problème agression ak léegi nag ñun bu ñu jógee fii fan la ñu jëm on se pose la question loolu la ñuy laaj. moonte bërëb bi du ay mécanicien rek ñoo fi nekk di liggéey soxna si moom borom restaurant la mu ngi fi boobaak léegi mën na fukki at ak juróom waaye dañu ko fay waaj a jëlee. 6 mois nañ fa a def wala sept waa koñ bi bëgguñoo yëkkati depuis lors te fii ñi fi ne man dama yor jëkkër ñi yore seeni jabar ak seeni doom bu ñu xëyee ñun ñooy xëy bu ñu wàccee bàyyi fi gardien ñuy garder. nañ ñu fi bàyyi ñu toog ba sunu sud bee ñu ñu jox pare ndax sud ba amul ndox amul courant te taana amul yoon amul dara. askanu Caaroy Lamsaar takku nañu ni faw ñu jëlee fii ñu ñu jàpp ni dañuy xatal dëkk bi ci lu dul yoon. si fi ñu dëkk donc ñu benn zone boo xam ne nii xalaat lañ ne bu autoroute à péage bi jàllee donc ak tronçon bi nga xam day relier autoroute à péage bi ak euh, route nationale bi espace boobu rek moo fiy des pour nous servir au moins d' infrastructure si toutefois que euh, autoroute bi jàll na y'a benn comité de quartier boo xam ne nii comité de vigilance bu nekk ci quartier bi ñooñu aussi dañuy veiller la nuit et si toutefois que dàq na nit aussi foofu lay dem dafa nekk benn zone boo xam ne nii dafay nekk benn zone bu dangereuse aussi pour le quartier. mécaniciens yi ñoom nee nañ duñu fi jógee file bërëb bu bees bi ñu leen di tabaxal ca Sendou pareegul. jërëjëf soxna Marième Biram baa ñu waxtaanee mbokk yi kaddu yi premier ministre Abdoul mbay démb ci kanamu assemblée nationale gannaaw kàddu yooyee ñu ko rafetlu bokk na ca jëwriñ yi di Mor Ngom yore wàllu transport naata ngoom bi ñu denk wàllu njàng mi Ibrahima Sall Youssou Ndour yore wàllu tourisme ak culture ku ca ne ci ñoom rafetlu kaddu yi démb yi ndax jàpp nga ne li nga doon xaar ne euh, programme ci secteur ba ñu la denk euh, jibal na ko ca ne ay leeral Chérif Dia seeni kàddu yooyee jëwriñ ànd ci ak Demba Ndaw li ñu fiy waxaat mu jàpp ko te man mu jëm ci man mu di transport bi nga xam ne man maa ko yor mu di infrastructure yi maanaam muy tali ak raay ak euh, li jëm ci euh, avion yi defe naa li mu ci wax lu leer la te boo leen ngeen toogee fii ak ay fan daa ngeen gis ay déclaration wala ngeen gis ci terrain bi sax loo xam ne ni daañu ko nekk muy jëf parce que defe naa ne ñëpp gis Euh, Linguère Matam ñëpp gis nañ ne démarré nañ ko euh, Bambey euh, Fatick Bambey nara dem ba Mexe ak Lompul ñoo ñëpp gis nañ ne démarré nañ ko raay bi nga xam ne ni moom moo gën a am problème affaire Transrail ñun am nañ ci ab seetlu ak gëstu boo xam ne ni bu ñu réglé problème bi li ko xaw a tardé rek mooy ne que suñu mbokku Mali yi dañu am ay problème actuellement talu tal nañ leneen lu dul toog di wax yu mel noonu mais ñun taxul ñu téye suñu bopp. wane na ne président Macky Sall ci yoonu yokkute euh, jël na ay préoccupations population yëpp et répondre nañ ci question yi éducation nationale itam wax nañ ci li nga xam ne moo ci moo ñu ci soxaloon muy déggoo gi nga xam ne déggoo nañ ko ak jàngalekat yi. ba sauver année scolaire bi ba def ay examen entrant sixième def ko ci e, BEPC def ko ci baccalauréat kon loolu lu am solo la ñu ngi gërëm député yi tout s'est fait dans la démocratie wane nañu Sénégal démocratie bu mat la def nañ ko ci yar ci teggin ak ci déggoo. dama yaakaar ne que euh, tourisme comme ni ko président de la république gisee premier ministre affirmé ko moom. branche la ba banqaas la boo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour bokk ci développement mën nañ ci sukkandiku aussi pour créer ay liggéey ngir xale yi laaj na nag formation moo tax ma ne yaakaar naa ne que bu ñu dellu siwaatee fii du yàgg noonu ak euh, li nga xam ne moom la ñuy woowee politique euh, sectorielle pour mën a taxawal programme yi nga xam ne moom moo yépp département yi ñu gis ne que ci sunu feuille de euh, loolu jël nañ ko en compte liggéey créer ay ak développement. mu nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu tourisme Youssou Ndour ngoom bu éducation Ibrahima Sall moox ngoom yore wàllu transport ku ne ci ñoom euh, bëgg ci kàddu yu premier ministre Abdoul Mbaye ñi loru ci waame gi ñoom ñu bari ci ñoom daanaka sax dégluwu dégluwunu premier ministre ñu ne waaye li wax jëm mooy gannaaw kàddu yu neex ya ñu toftal ci ay jëf jëf yu ay gët mën a tegu ndax jàpp nañ ni daal jot na euh, ñu amal jëmee ci ñoom ay saafara ci lu sax ñenu ci euh, sancal judo caaxoy kaw rawatina Fat Bintou Konté Ibou Cissé ci site de recasement bi ñu demoon fii ci jidda Kaaroy kaw discours de politique général bi nga xam ne premier ministre Abdou mbay moom la def démb daanaka ñoom ñu ci bëri dégluwuñu ko ñi ci ëpp ci seen biir xamle nañu ne dégluwuñu ko ca rajo ba seetaanuñu ko ca télévision ba ndax amuñu woon jotam. non non dégluwuñu ko de dégluwuñu ko de. amuñu ay télé fi nekk nii amuñu ay télé ay sinistre ñu fee toog nooy rek di xaar di déglu di xaar mais dégguñu ñun xamuñu luy xew ci dëkk dañaa toog nii di leen déglu di xaar. aw ma télé aw ma fii la nekk loolu moo tax dégguma wax bi dégluwuma ko waaw waaw dégluwuma ko sinistre yi nag ñoom jàpp nañu ni jamono ji discours gi dafa war a dakk nguur gi dafa war a poser ay actes yoo xam ne dina leen tax ci tolof tolof yi ñu nekk ñu génn ci ci ni mu gën a gaawee depuis Wade ba tey euh, donc euh, c'est le c'est c'est ce sont des discours qu'on qu'on nous sert on ne a pas servi servir ñu loo xamante ni lu taxaw la loo xam ne day régler définitivement inondation ñun ñu jàppale ñu wutal ñu ay dëkkuwaay ndimbal gi gaa lekk beeg naan bi ci la mais dëkkuwaay bee ñu gën a soxal ndax depuis 2006 ba tey depuis 2005 ba tey ñu ngi dund ndox mi at bu nekk nga génn sa biir kër ñi jàppale la yóbbu la ci école yi. ñenn ñi sax ñu ngay duut baaraam yenn autorité yi jàpp na ni nag dañoo bëgg am xaalis ci seen dokk ndax bëgguñu inondation yi jeex. mu mel ni nag. dafa am ñoo xam ne dañuy dundee une inondation dañuy dund si inondation bugguñu inondation jóge fi donc véritablement loolu dafa regrettable ci Sénégal bi ñu nekk ñiy dundee inondation am na xam nañ leen parce que soo demee suñ demee ba naan nañu audit plan Jaxaay suñ demee ba naan nañu audit euh, le le le plan Orsec c'est parce que dañoo gis ni effectivement y a des manquements donc am na ñoo xam ne ñu ngi dund ci inondation problème inondation yi nag ki nga xam ne moom mooy premier ministre du mbay jox na ko cër gu baree bari ci li nga xam ne moom mooy discours am wante sinistre yi jamono ji ña ngay toog di xaar ndax nguur gi dina trouver benn solution ci seen tolof tolof gi ñu nekkee jamono ji ñu des penc ndawi réew ma keroog am na fa werante gu jib ñeel nationalité ministre Aboulo yore wàllu wàllug communication ke jibal wax ji Abdoulaye Makhtar Diop jàpp ne daa ñàkk nationalité bu Sénégal taamu bu Allemagne warul woon doon ministre waaye xalaat boobee soxna Ndeye Fatou Touré avocat dàq na ko ba mu set wicc Cheikh Abdou Khadre Seck la ci àndal ak Alioune Diagne. le code de la nationalité au Sénégal. de la nationalité bu Sénégal nanguwul ku am ñaari nationalité. code bi li mu wax dafa leer naññ. maanaam bépp doomu Sénégal bu am nationalité ci beneen réew day ñàkk nationalité bi mu am fii ci Sénégal te bu nu sukkandikoo ci article 16 moom li wax mooy bépp doomu bitim réew bu ñëw ci Sénégal ngir am fi nationalité kooku mënu fi am benn liggéey ci wàllu fonction publique te bu dee wàllu élection kenn du ko mën a fal. dans la fonction publique et ne la ñu nemmeeku ci déclaration bu politique générale bu premier ministre yenn ci ay député di xamle ni ñàkkum nationalité sénégalaise bu jëwriñ bi yor wàllu communication abuloo da koy teree doon ministre ci réew mi. waaye loolu doon lu ñenn ci seen i naataangoo teggi ba mu set. Euh, Sénégal en tout cas constitution bi waxul ne. ku am ñaari nation ku am ku nekkul sénégalais rek munoo nekk ministre loolu gisuma ko ci constitution bi euh, double nationalité article 18 moo wax ne ku ku am beneen nationalité boo xam ne yaa ko sàkkul sa bopp wutal ko sa bopp te fekk am nga fukki at ak juróom ñett yu mat sëkk maanaam majeur nga da ngay ñàkk nationalité sénégalaise mais dafa dañu yaakaar naa ne ñàkk bi nekkul ne da nga koy ñàkk automatiquement il faut ñu jël at dogal woone ne ñàkk nga ko donte sax wax yi dafa wuute ci li jëm si nationalité abuloo li lal ba leer mooy werante baa ngi fi ba léegi premier ministre moom ci wàllu koom-koom réew mi gis na ni deltu ginnaaw gu miti da caa am ndax ci kàddoom jàpp na rek ci misaal bor bi Sénégal ameel ñenn ñi nga xamante ñooy bàyyir yi misaal gi mooy ci atum 2006 bor boobee mu ngi woon ci junniy milliards ak ñaar fukk ak ñett yu tegal waaye di daaw bor baa nga woon ci ñaari junniy milliards ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent mu mel ni kon ngir dàbbali suqali koom-koomu Sénégal faw wéer ko ci mbay mi mooy gis-gisu yenn ci économiste Louise Sarr Alioune Diagne Sénégal bi nekkoon na lu ñu doon waxtaanee ci déclaration politique générale bu premier ministre Abdoul mbay amaloon ci atum 2006 bor bile jàll na ci junni milliards ak ñaar ñaari junni milliards ak juróom fukk ak ñeent ci atum 2011 loolee nag tax ba ñuy yëngu ci wàllu koom euh, wax li ko waral. état bi dafa dafa dafa créé benn agence boo xamante ni c'était pour mu mettre en place. ay infrastructure pour accueillir benn sommet loolu tamit Sénégal amuloon xaalis boo xamante ni daf koo dencoon pour prendre en charge dépenses yi nga xamante ni da ko war a def donc euh, ñu leb xaalis bu bari pour euh, investir sur euh, les infrastructures xam nu ñu koy waxee ci wolof ci ay tali ak ay bâtiment yu bari loolu nag dafa jur benn benn dette boo xamante ni bu fekkee dette bu fi nekkoon da koy yokk gouvernement bi lee wax na lu bëri ci jafe-jafe yu soxal askan wi waaye économiste yi lee ne nam ko fas yéene defee dina ralentir koomu Sénégal. ngir am benn croissance économique bu toll ci 3,9 pour cent ci 2012 bi premier ministre bi ne war nañoo dooleel mbay mi ngir loole am économiste yi lee ne war nañoo wàññi ñam yu ñuy jëlee bitim réew di ko indi fii ci Sénégal waaye tamit tëral benn plan ci diiru juróomi at pour mbay mi ndax occupé na tey ji 60 pour cent ci koomu Sénégal. soo jëlee cent sénégalais soixante yi yëpp ay béykat lañ donc loolu dafa signifier suñu booster agriculture sénégalaise suñu jàppale baykat yi ba politique agricole bi dem ci kanam loolu dina fexe ba euh, côté alimentation maanaam côté côté dundi côté euh, euh, nourriture bég ñu am loo xamante ni nourriture bu doy fekk du ñu importer te suñ ko defee tamit su ñu amee autosuffisance alimentaire loolu dina créer tamit ay emploi ci déclaration politique générale bu premier ministre Abdoul mbay bii jël nañu ay mesures yu bëri ngir wàññi ñàkkum xëy bi ak ndool mi ñuy yëngu ci wàllum koom ñu ngi ñaan ñu jóg ci ni mu gën a gaawee ci projet yu ñu tëral ci wàllum mbay mi assemblée nationale nag li toogaay yi jekk yëpp journalistes yi ñoom dañ leen dankale woon ci daanaka benn boyet rek ci misaal ndax xam ngeen ni Sénégal ku xëy dégluwoo rajo jàngob kaay wala télé mel ni ku waaye ña cay liggéey ñoom weg gi daa des ci anami liggéey bi nañ leen fa dankale woon kon ci assemblée nationale ñoom journalistes yi ku ne xam nga ni lii ci anim anam mayewul liggéey bu yemb Adiatala bokkoon na ca ñañu fa ñooxoon ci boyet ak Alioune Diagne session ci assemblée nationale bu ne coono la ci taskatu xibaar yi teel a yeew wala jëfandikoo say doole mooy tax nga am foo toog melokaan buy jëfel liggéey taskatu xibaar yi mënoo jël benn box rek nga jox ko lu toll ci au ay téeméeri journalistes yoo xam ne ñoo ngi fi mu télé fi mu ngi fii rajo yi ñoo ngi fi ak presse écrite bi mu mel ni kon foofu condition yi mënul baax parce que déjà am na ñoo xam ne direct la ñu nekk euh, muy rajo ak télé bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne dañuy dugg di génn déjà box bi def fa tuuti xat-xat boo xam ne amoo sax fooy teg sa tànk je pense que loolu xaw na doy waar. soo ñun dañoo obligé yéeg ci kaw jaxasoog public bi parce que sinon doo mën a liggéey kon loolu day tekki ni bâtiment bi nga xamante ni am na yu ëpp juróom fukki at. te am na sax yu ëpp juróom benn fukki at fu mu nekk nii war nañ ko yaatal surtout pour journalistes ñu mën a liggéey ñu box spécial pour caméraman ak peut-être photographe ñu box spécial peut-être pour loo xamante ni mooy ñuy bind ak ñuy wax rajo ñu mën a bokk ñu gën ko yaatal ku nekk mën a nekk véritablement ci condition de travail yi ba kenn du kenn du ñaxtu daal. xataayu béréb bi ñuy jàgleel taskatu xibaar yi tax na ba ñuy foto di am ay jafe-jafe. yeneen taskatu xibaar yi dañuy mujj yëg fi ñu jagleel public bi. ñu ñuy ñu booleeg yi bon am nay image yi nga xam ne boo ko bëggee doo ko mën a am léegi il faut nga mën a wàcc suuf te on nous a interdit ci suuf donc ci kaw nga mën a nekk pour mën a bale ci kaw loolu da nga mën a def te puis foo taxawlee gendarme te dire dégage fii waroo fi taxaw. bon donc lii bu demee ba am war nañu jël matukaay bi xam ne taskatu xabaar yi dañu ñëw pour jox xabaar bi nit ñi. mais bu fekkee tasar xaar dañuy ñëw nga leen xatal bon man affaire bi xamatuma ci dara quoi. waroon nañ jël ñaari box yoo xam ne wala ba ñett sax ñu réserver ko journaliste yi ndax manifestation yi mel ni dafa am solo de telle sorte que presse bi yëpp bëgg ñëw pour mën ko fekkee. am na jafe-jafe même su fekkee ne journaliste warul bañ a priori jaxasoog public mais am na jafe-jafe parce que condition de travail yi bokkul ak ñii dañuy ñëw pour tàcc si yuuxu si ñëw pour concentré wu liggéey bàyyi xel ci li ñuy wax kon ñooñu war nañu am quiétude ak tranquillité boo xamante ni war leen mën a may ñu def liggéey bu am solo doo xamante ni am benn jafe-jafe surtout conditions yi nga xamante ni ñoom dañu war a delloo information ci public bi kon loolu war na nekk ci condition optimale. bi taskatu xibaar yi rawatina waa presse privée di buuxante ngir am fu ñuy toog ñiy liggéey ci presse publique amuñu li leen xatal ngir liggéey ci anam yu jaar yoon. ñenn ñi dem bay laaj kañ lay boddi gi di jeex ci taskatu xibaar yi. adiya taala wàllu sport ñu ànd ak papa Abdoulaye Der maa ngi lay nuyu Abdoulaye. su journal bi saf na DPG kon dañ ciy des <laughs> déclaration de politique générale euh, bu premier ministre ci wàllu tàggat yaram bokk na kàddu yi mu yëkki nu ñuy def ba suqali tàggat yaram boobu jaaree ko ci UASU muy euh, tàggat yaram ci école yeeg université yi daara ju kawe ji euh, waaye kii secretaire général UASU boobu Léopold Germain Senghor ne diggante ministère de l'éducation ak ministère. ministère des sports xaatimoo dox na ci am na ay euh, texte kayit yu ko tënk kon dañu war def lu dul appliquer loolu ak góor góorlu ci infrastructure yi ci école yeeg daara yu kowe yi Léopold Germain Senghor laaj ak tontu dox na digganteem ak Cheikh Tidiane jara ministère des sports ak ministère de l'éducation ci année 2010 bi moom ne woon na benn protocole jëmale woon ni ñuy xoolee ñoom ñaar gere sport scolaire mais loolu signature bi rek waruñu fa yem war nañu dem au delà ba nga xam ne am ay euh, situation yu concrète maanaam ñuy liggéey def lu wóor ba nga xam ne mun nañu jublu di organiser ay compétition yu baax te loolu sax mun nañu xalaat ne su fekkee sport mu ngi dox bu baax ci école yi euh, mun nañu xalaat sax ne club jarutul sax ñuy toppatoo petite catégorie même su fekkee teg nañu fànn yëpp yoo xam ne sport mun na développer ci école yi wala ci université yi war nañu xalaat ne euh, tabax ay infrastructures yu baax maanaam ay terrain euh, mettre leen euh, à leur disposition ay matériel didactique maanaam ay ballon ay mayo ak yooyu yëpp mun na permettre en tout cas Euh, ñu développé sport bi soo demee ci école yu mag yëpp muy lycée Lamine Gueye muy Blaise Diagne muy Kennedy wala ci école élémentaire yëpp mënoo fa gis terrain bu baax. ci lu ñu gis démb ci assemblée nationale ay euh, ñu ngi njort ne euh, ci fan yii di ñëw wala ci weer yi di ñëw en tout cas nañu taxawal ay structures yoo xam ne war nañu jëmale ñu développer sport bi ci école yi ak université ba nga xam ne euh, élèves yi étudiants yi ak ak seen encadreur muy enseignants yi mun a jublu jàppale développement sport yi ci dëkk bi ci wàll woowu la ñuy des ba léegi bokk na ci kàddu yi premier ministre yëkkati nu ñuy def ba xeex violence bi maanaam congante xeexoo wi ci stade yeeg ci tàggat yaram président commission sportive bu ñaari tali bokk ci gis-gis ak nguur gi ñu teewlu. ministre bi li mu li mu wax euh, pour dimbali le sport defe naa loolu euh, ñëpp koy rafetlu parce que loolu lañ doon xaar ci moom tey ñu ñëw ne dinañ indi ay moyens pour au moins sport bi yëpp. ñu développé ko defe naa loolu su ko ministre bi waxee premier ministre ñëpp ci ñëpp ciy adhéré ñëpp ciy ànd parce que loolu lañ soxla parce que sans les moyens mënoo mënoo mënoo réussir ci dara donc ñoom suñu ñëwee pour accompagner ñu defe naa ñun fekk na ñu tàllal leen ay loxo ba pare. ñoom bu ñu commencé pour jéem a dindi violence bi dafay deñ parce que dañuy mettre à la disposition sécurité bi et tout loolu moom vraiment ñoom bu ñu ko defee rek situation bi rek ci wàllu tàggat yaram ba léegi bitim réew ak euh, jamono ji ñuy àddoo zone Europe ñi ngi ci seen deuxième journée qualification coupe du monde 2014 ci kanam tuuti France Biélorussie dinañu jongante jamono ji Italie moo jiital Malte benn bal ci dara Pays-Bas it mu mëne ca Hongrie ñaar ci benn Allemagne Autriche euh, kenn dugalagul euh, dara dinañ ci dikkaat ci yeneen i xibaar Alaaji Assane loolu doon fi li gën a fës ci wàllu tàggat yaram. maa ngi lay gërëm Abdoulaye di seetlu ne yow it sa xibaar yi saf na DPG de. sap <laughs> jërëjëf Abdoulaye Der ñu dalal mbokk yi gan gi professeur Seydi Ababacar Dieng économiste la jàngalekat chercheur ci FASEC professeur ñu ngi lay nuyu rafetlu teewaay gi. maa ngi leen dolli nuyu ah. li ñuy jàngatandoo ak yow rek mooy kàddu yu premier ministre Abdoul mbay ci wàllu koom-koom gi démb état des lieux ni mu fekkee réew mi kàmb yi mu fi wax ci wàllu bor ak yàqin wi yow boobu seetlu nga def ne moom waaw euh, ànd naa ci ci li ñuy wax si maanaam ci gis-gisu mu am ci loolu waaye nag am na ci yenn euh, dépenses yu bëri yu ñu defoon aussi waroon nañ ko def parce que amoon na fi njëriñ lu mel ni defar infrastructure yi tali yi parce que nit ñi mën a di déplacer wu bu baax loolu aussi lu amoon njëriñ la waaye nag bu ñu xoolee est-ce que amuñu woon beneen euh, moyen pour def financement bu gën a efficace loolu aussi mën nañ ko poser question ci côté boobu am na dëgg foofu ah, naam boo jëwee di def état des lieux waaye li ñu doon gën a xaar ci moom mooy moom it fu mu jëmale réew mi mm-hmm. euh, euh, ci ay doom ci déclaration gis nga ci vision bu wér ci wàllu koom-koom waaw li mu wax ci parce que ñun dañu nekk dëkk boo xam ne bii euh, maanaam mbirum lépp lu jëm ci ci ci bay ak yooyu def ci am solo fii ci nit ñi ci ñu ci ñu ci jublu daal te gis nañ ni moyens yi foofu dafa des te am nañu am nañu war nañu daal def tout pour soqali yoon boobu parce que loolu lu lu war a am njëriñ la suñu réew mi parce que secteur bu am solo la ci ci suñu suñu koom donc lu mu ci wax noonu loolu yaakaar na ni euh, lu ñuy xaar daal mooy ñu ñu ñu def yëpp rek. Ah. waaw wax ji jaar na yoon waaye léegi dañuy dañ leen a may tuuti ñu def lu ñu wax parce que loolu moo ci gën a am solo nit ñi ñu ngi ñëpp ngi ne tekki di xaar rek. mais nag yoon wi du gàtt ndax mbayum Sénégal bokk ak xëy na bu tugal ak yeneen dañoo nekk ci ay jumtukaay yu yamamaay ndox mi nawet ba nawet la euh, xam nga euh, comme je dis chemin bi gudd na de pour nga dabb ko ci wàllu tracteur ci wàllu joxinu suuf bi baykat yi moom seen suuf ci wàllu ndox mi waaw loolu yëpp lu am solo la waaye bu ñu dee xool aussi parce que am na lu bëri lu ñuy lu xaw a duñ duñ dul dem ci côté boobu mooy maanaam coopération lu ñuy wax naan di am ñu ñuy bokk bi pour mën a jëmale kanam. loolu def naa ci sawaree aussi war na mën a gaaw gaaw gaawal affaire daal. ci ci lu wér maanaam lëngoo na borom yi kattan. waaw ñu ci am am ñu ci am expérience ak ñu mel ni indien yi ñu mel ni chinois yeeg yooyu yooyu tamit liggéey ak ñoom ci côté boobu war na mun tax daal ñu mën a gaaw. am na nga ci investisseurs yi ñëw donte léeg ngir euh, ndànd foy foy ci dëkk bi nga xam ne ay garab yi màdd ki lu ne rek la dara amu fa ay niim ñu ñu ñu investir fa def fa usine. waaw euh, wax dëgg yàlla nag fu ñu war a mën a liggéey ci gën a soqali ak agriculture bëri na léegi foog ñu xool nag nu ñuy def pour def ba loolu mën a mën a nekk loo xam ne lu lu wér la. pour que ñi fay dëkk population yi aussi am ci gis si seen bopp daal. donc waruñu leen fàtte ci ci waxtaan bi ci loolu. professeur bi muy euh, cité Alaaji Assane dégg naa chinois yi indiens yi mais aussi ku xam Israël xam ni ndox bëriwu fa. Mm-hmm. et pourtant am nañ ci euh, expérience ci wàllu mbéy moomu am na ci xam-xam ak xarala xëy na du ñàkk euh, buñ leen ci ñoom it boole coopération ñu gën ci avancé mais li ma bëggoon a laaj mooy nu ñuy def ba véritablement jeunes yi gis nañ ni mm-hmm. eh, chômage bi ñu ñu touché ci nañu gën a bokk nu ñuy def ba vraiment mu am incitation ñu dem béyi te ñu am ci dara véritablement mën ci jàpp des ci.

plan boobu aussi yooyu idées yooyu mën nañ ko gën a xool nu ñu ko defaraate waxtaan ceeg nit ñi parce que aussi ku nekk fu ngay dem bu nga boo fa demee aussi mu wóor la ni fii di fa fekk loolu mhm. la ak information wax leen lii ak boo leen ci duggee lii ak lii mhm. te foog tamit ñu nit ñu tey aussi parce que du bëreet rek nga daal am lu nga bëgg kooku ah. foog tamit ñu ñëpp ñu xaw a dal tuuti tey ah. et ku nekk joxe li nga war a mën waxtaan defe naa ni fii am na a goutte à goutte bi système goutte à goutte ba nga dëgg waaw parce que mm-hmm. ñun comme li ngeen wax léegi ndox mooy suñu problème mm-hmm. parce que lu ñuy lu ñuy mi premier ministre wax na ko sax parce que suñu euh, kii bi bay bu mu dox ndoxu taw bi la ñuy yaakaar. donc tout bu condition climatique yi euh, ñëwulee def lu lu baax ci ñun. waaw ah. du ñu arrangé ndox bu manqué daf ñu yàqal ba bëri daf ñu yàqal. Ah. donc foog ñu wala xool yenn jëmtukaay la ñu mun am ba tax ni ndox moom di manqué. Mm-hmm. ñu mun ñu mun fexe ba loolu même dee noor sax ñu mun ci bay. te loolu mun na mun a nekk. waaw ba tey ci wàllu économie wàllu endettement bi. Mm-hmm. premier ministre wax na ja ci wàllu leb gi mënut a ñàkk xëy na ci réew yu mel ni bu Sénégal mm-hmm. waaye moom ña ñële daan lebee la ŋàññ ci ñoom ñu ngi leb ba tey lan moo ci mën a génne ci si wàll woowu. waaw waxtu bi fi mu nekk nii nag moom comme suñuy soxla dafa bëri te euh, maanaam luy dugg ci état bi recette am mayu ko mu mën a def dépense yi mu soxla donc euh, leb moom du ci ñàkk. Mhm. léegi ak lebin bi aussi parce que am na mu nu ñu mën a lebee loo xam ne lu ñuy côté lu mhm. am na loo xam ne ñu ko booy dem ci marché yi aussi foofu c'est le marché yi taux yi mooy gën a élevé war a fay ñu lebal ñu mooy gën a bëri. Ah. que bu ñu demoon gis gis benn état wala benn institution c'est vrai que euh, lu ñu war a fay du bëri bokkul donc yooyu tamit giseen bi am na ci am na ci solo lool mhm. parce que lu ñu mujjee def nii ñun boo xoolee ci depuis juin bi passé ba juillet Sénégal lu mu leb ci marché bi kenn lebu ko ci boo xoolee. Mhm. li mu sollicité marché UMOA bi kenn def ko ci. Mhm. te comme ni mu ko waxee wax na dëgg que ni en fait leb yu ñuy leb noonu dañu war a gaaw di fay bor bi mhm. su bon trésor yi xam nga a a lebee aussi war nañu ko xool. loolu moom tamit c' est c' est vrai que wax na ci dëgg mais nag ñàkk pexe aussi comme li leen waxoon ni boo bëggee développé il faut courant waxuma sax pour niitu ci nekk waaye pour usine yi usine wax nga dëgg waaw waaw ma fende ma feddali li nga wax rek mooy que ni bu ñu gisee par exemple lu mel ni 2010 2011 euh, lu tax que ni suñu koom-koom jëmul noonu kaw mbirum courant bi moo gënoon yàq euh, kiiwu secteur secondaire bi ba nga ah. xam ni lu ñu waroon def defuñu ko donc loolu lu wér la donc énergie bi am na ci njëriñ lool jërëjëf euh, professeur Seydi Ababacar Dieng ci kanam tuuti ci français incha allah 20 heures ñu àndaat ak yow di la gërëm di gërëm papa Abdoulaye Daer mi àndoon ak ñun ci sport gi waaye ndeke dafa am ay clé ci wàllu économie xaw ma ko woon Abdoulaye <laughs> xam nga nag koom-koom gi comme moo yoot lépp. Ah. faaw ñu ci bàyyi xel ak ñu nopp daal di ko ah. topp. donte waxtaan duñ ci dépensé naka la ñuy def ba waxtaan ci kër yi. ba ñu wàññi ko wala waaw ak poos yi gën a gën am dara. <laughs> Abdoulaye Deex ñu koy gërëm mbokk yi naka noonu yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yeeg télévision Futur Média TFM 20h xibaar yi ci français Khalifa Ababacar Diakhaté ñu fanaan jàmm.